tey saa su ne bu ñu gisee huit heures après dañuy dem ci terrain bi bu quatre heures jotee tam dañuy dellu soit ñu xayal lu ñu xayma wax nañ leen ko prévoir nañ fii hôpital militaire fii nii ci résidence bi loolu ndigalu xalif bi moo ñu jox fii moom tam ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko ñaanal parce que euh, lii mu def nii moom ci liggéey Sëñ Tuubaa bokk ci gannaaw tam héliport bi dem foofu la ñuy prévoir le site de prise en charge parce que maladie am na fu ñu war a nekk foo xam ne du bokk ak hôpital yeneen te encore une fois ñu xam ne képp ku fa ñëw doo fay dara le traitement et la prise en charge elle est totale elle est donc loolu laa bëggoon ngeen xam ko xam ne ñi ngi ànd ak su ñu njiit fii di gouverneur ak préfet Mbacké ak sous-préfet ñu ànd ak ñoom ak monsieur le maire pour ñëw saytu de visu xool ba xam naka la ñuy def ba mën fi installer ñaari sites yooyu ñu wax. alors ci xayma ñi fi nar ñëw rek. Euh, les malades sont stables euh, comme ni mu leen ko waxee monsieur le maire ñëw na ci cas yi njëkk am mooy comme ni mu ko waxee au début la les directives étaient que malade yëpp ñu dem au niveau de l'hôpital Fann mais bi ñu demee gis na cas bi indi na yeneen cas ce n'était plus la peine ñu leen di. kii donc on a dañu mujj jël centre de santé Daaru Manaan bi nga xam ne moom moo moo moo dépisté woon cas bi foofu lañ def léegi centre de prise en charge donc cas yi fa nekk son stables stable sax mooy lan am na ñu nga xam ne jar na garab am ñu nga xam ne c'est des malades asymptomatiques c'est-à-dire dañu am virus bi mais amuñu feebaruñu seen yaram tàngul seen bopp mettul mais mënuñ ñeen baa ñu dem ci ci jaww ji donc dañ leen confiner foofu di leen surveiller di waxtaan ak ñoom on a une de psycho Euh, anthropologue looloo tax ñoom ñu ñëw fi parce que bu ñu tegee foofu rek te waxuñu leen dara dañaan ah, ñu dañuy fee teg tey waxuñu dara donc ñoom feebaruñu mais ils ont le virus mais dañ leen di surveiller donc c'est ça loolu il faut ngeen xam ko donc cas yi ñu ngi tuuba il faut que yéen presse bi ngeen wax loolu parce que sànq bu léegi sànq ba léegi ñu ngi may woo di ma laaj noo am na ñuy wax man leen yéen presse bi xam ngeen ci donc vous pouvez donner la réponse moo gën ngeen ñu woo mun ngeen ñu bañ a jot ngeen jàpp ne duñ leen jël donc vous avez vous avez été très bien informé parce que point de presse bi ñu defoon vous étiez là-bas donc les cas sont à Touba et ils sont très bien gérés ñu ngi au centre de santé de Darou Manane. alors personnel bu fi na war ñëw ci ma bon personnel bi nag man ma la wax exactement parce que fii moom c'est sûr que héliport moom y aura une moom militaire nag je sais mais fii moom di dinañ toll si si si si une cinquantaine de personnes parce que dispositif la bu bu bu am solo donc du ñu du ñu bàyyi dara yëpp la ñuy yëpp la ñuy